appel bi may lancé mooy jeunesse bi nanu góor-góorlu ci mesure de barrière yi nu teg bu nu topp topp suñu fëgg fugg de jeunesse barol lor njaboot gi lor nangam nanu dal ànd ak yar xam ne lislaam égale discipline bu leen ci kenn nax l'islam égale discipline gis nga shahada bi nga ne mooy tax nga dugg ci l'islam soo amul yar yàlla du la ko nangul julli dafa am ay règle discipline la koor gis ba nu xëyee ba tey sañuñu ko sañuñu lekk sañuñu naan di xaar waxtu dog discipline la azaka nangam nga am lii mooy discipline bi ci nga war ca génne discipline la aj màkk ñii dem màkk ñun ñii dem màkk xam nañ soo demee màkk yii sañoo ko sol soo soo armale discipline la ba fan yamat nga door a sangu sañoo watu sañoo dagg say wee discipline la kon l'islam yow wi kay oote woon na nga yëg ni base bi discipline la société bu bu bu développé base am la réew mu développé base am la kon nanu yaru nanu yaru sunu bëggee développé sunuy réew nanu yaru leneen li mooy problème mu jàkka yi du ma ci sori ndax la am solo Ablaye laay la ci solo problème mu jàkka ji mooy ñu bàyyi xel ni ñu ngi respecté position yëpp sincèrement ñu ngi respecté position yëpp yëpp ndax nit day respecté xalaatu moroomam waaye nag bu nu juum bëgg naa ngeen bàyyi xel li may wax jàkka yi nit moomu ko ba yàlla nee na bu leen fa wax kenn kurul man wa anna al masajida lillahi fala taqum allahi ahada kon loolu damay raavaaye boroom xam-xam yi ñu xootal aaya bi ci xalaat kon solution dina am beneen bi ki tax yàlla bindal jàkk pour war fa dajeeg moom lan moo tax yàlla amal ko alxuraan ni wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li yaabuduni yàlla nee na binduma leen yéen jinne yi ak nit ñi lu dul ngeen jaamu ma moo ca zaariyaat nanu xootal xalaat boobu waaye jaamu gi nag li tax yàlla moo tax yàlla bindoon waaye nag wa ma umiru ila li yabudullaha muxlisina lahu jaamu ga mais jaamu gu ànd ak sell la la yàlla wax kon yooyu daal laa woon nanu ci bàyyi xel ñu xam ne jaam yi jaam yi yàlla lanu nanu wax ak ñoom fi nu war a wax ñoom ñaan yàlla bu baax a baax a baax yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yal yàlla defal nu ndam ci xeex bi li nga xamante ni mooy li ci nëbbu ci wàllu baatin ñun ca le 7 mars ca Kayaar lanu sëriñ bi jox orientation yi am na loo xamante ni sañu ma kaa wax te xam nañ ko ndax bàyyi xel suñu borom ñu bàyyi ci xel gis nga nanu xool Pa Ibrahima 2020 chiffre dafa am solo te coow lu yóbbu nanu ba ñun gëstukat yi bàyyiwunu xel deux mille vingt ak mille neuf cent vingt ak bug deux mille yéen ñëpp yéen koy fàttaliku deux daal fu mu ñëwee ci mbir mi dinaa am yu xew loolu nag leneen la sëriñ bi leeralanu covid point dix-neuf bi xam nañu lu mu chiffre dix-neuf bi sax gars yi nañ ko gëstu am na lu tax kon yooyu ak li nga xam wàllu baatin la loolu lépp ñun xam nañu ko kon li may oo nit ñi rek mooy ba nu sëriñ bi jàngalee loolu ba pare la mu gën a mooy waaye nag nanu respecté autorité sanitaire yi li nu wax ñu def kon ñu nit foofu rek la ñuy tëjee